fu discours jibee fu seen déclaration jibee ci média yi ci société civile ci politique bi ñépp dañuy siiwal tawatu Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko lan moo ko dal Ousmane Sonko lan moo ko dal lu mën a tee mu nekk candidat mën a doxal politique mais loolu la ñuy véhiculer guddi yi ñu toll xam ngeen pour lan pour gëm loolu leen ni ki ngeen topp mënut a nekk candidat yéen xool nan ngeen koy doxalee mais si vous avez homme politique yi au Sénégal téeméer bo ci jël vous ñett fukk gens juróom-ñeent dañoo tawat xam nga lu ko sabab seen réew amul ay fajukaay yu baax ba borom barke yi nekk ci nguur tawat da ngay bitim réew xam histoire bu doy def accident hôpital mag Dakar jox ko rendez-vous une semaine ko ordonnance mu tok ba ngone métit bi sonal ko mu dem ci ben clinique fay khalis docteur ba fa nek du sax sénégalais gaawantu ni gaaw leen sauver nerf bi gaw dugal leen ko borox ñu def opération loolu mo sauver loxo xalé bi kon bu don hôpital bu mag bi nek fi ci Dakar ñu yaakar ko xalé ba loxoom dina yàqu pat momu lañu am tay ci Sénégal ba tax na yenn coono yi ak li Ousmane Sonko dundu diggante 2019 ak légui

mooy xool micro bi moo gën a wóor beneen bi ci des mooy fan yii yépp bu weesoo sante Ousmane Sonko am na ay leader politique yu naan bu fekkee Ousmane Sonko génnul ci kaso bi dégg nga de bu fekkee Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi Pastef nañu def mouvement am ku ñuy jiital ngir bokk ci élection yi mun nañu ko ci jamono ji nga xam ne dañu dissoudre parti parti Pastef dañu dissoudre parti Pastef donc juridiquement du am man-manu participer ci élection présidentielle ci fi ñu toll gumbu changement amul kon bu ñu leen nee créer leen benn mouvement ou association pour bokk ci élection dañu leen di nax booy ànd ak nit da nga koy wax dëgg boo koy conseil da nga koy wax dëgg juridiquement aptu leen pour dem ci élection mais loyalement ak légitimement ku falu yéen a koy fal Ousmane Sonko nekk kaso ñu éliminer parti bi Pastef du parti bu am ay militants esprit la loolu nag valeur bi mu am tey da ngeen am doole ju yéenay fal ku leen neex kan ngeen di fal waxoon naa leen ni coalition Yewwi Askan Wi ñu bëri bëgguñu doole ak puissance bu Ousmane Sonko am ñeneen ci ñom ñu doxali doxalinam.

ñoom la ñuy wax ay traître ci géopolitique bi mais li am solo mooy segam ñi ngeen àndaloon ñoo dem ba def leen jeu bii ñu leen joué sàkkaa ñi ngeen àndalu te weddi leen woon au début tey ñu bëgg leen a gëmloo loo xam ne juridiquement mënut a nekk da ngeen di xalaat mënul nekk xam nga lan moo war nekk nu ñuy sauvegarder nu ngeen di sauvegarder esprit bi nga xam ne moom ngeen am. ci xamni puissance ak doole bi tax ngeen di fal ci seen loxo la nekk mais kan ngeen di gëm ay kàddoom kan euh, est-ce que tey bu nit xëyee xëy autoproclamé wu ni man maay chef Pastef parce que Ousmane Sonko ngi ci kaso bi bu boobaa dina leen bett yéen <laughs> bu amul itam nag bu amagul itam na ngeen ko xaar <laughs> bisa ngay ñëw ku bokk ci yéen mun naa xëy autopro autoproclamé wu ni man maay njiital Pastef parce que du ñu bàyyi Pastef mu dee donte dissoudre nañu ko xam nga kon légalement mënut a nekk njiit mais dina ko autoproclamer clamé pour tuddee ko naneen gëm loolu leen ni idée ak philosophe bu Pastef lay doxal te fekk na dañ ko ngembee faneen foo ngeen dund intelligence tey nag am na ñoo xam ne ñu ngi leen di dagaan di dénoncer que ñaawlu arrestation seen leader di dénoncer que ñaawlu

ñu ngi koy jéem a fàtt xam ngeen ni Golan Fatxullah Golan nekk ci Angleterre bu nekkee opposant bu fàtt ki jiite turki ba fépp fu mu am kenn ku ko représenté mu def pexe bu mu la faagaagale ba fii ci Sénégal semaine bi paase rek tribunal jël na benn dogal boo xam ne dafa annulé dogal bu nguuru Sénégal jëloon pour exiler benn homme d'affaires turc bu nekk fii Sénégal di liggéey avocat am jël décision bi yóbbu ko ci attekaay yi te cëppaandaw ji ñu xamni waju deful luñ ko exilé mais Sénégal dafa noppi pour exiler ko homme d'affaires bobu parce que fay prôner esprit bu Fatah la Golen vision pastif non la mel du militantisme esprit le ci walu xam-xam ci walu doxole ci walu démocratie ci walu liberté ci walu gis aperçu bi ñi am ci lu mën indi changement ci dundu ñu askan est-ce que kon da ngeen di nangu est-ce que kon da ngeen di nangu. ñuy gàttal seen xel ba bëgg leen a tënk ci ki ñu def law liggéey sant ko mission pour mu siiwal tawatu Ousmane Sonko ngeen bëgg koo gàcc rek ci saaga ak tontu du foofu weesu na ko li koy défendre li koy firndeel ay exemple yomb la mbaa xam ngeen ni Sénégal am fi cancer mu ci yombul mbaa xam ngeen ni cancer dem urgence bo amul garantie kenn du la jël mbaa xam ngeen ni Sénégal ba léegi ñu ngi daw ci wàllu couverture maladie universelle boo xam ne kenn gisul njëriñam ba qui kon Sénégal nek homme politique tawat fi yomb na lool. nekk kuy daw di liggéey tawat fi yomb na lool nek ku sonn tawat fi yomb na la lool waaw est-ce que kon tawatu Ousmane Sonko ju ñuy lawti lawte ci ku ñu teg loxo yóbbu la kaso nga nek grève de la faim pendant des jours. Ni annoncé ni ndékki nga ben yoon bo tawatul do nit extraterrestre nga jóge ci kaw asaman te Ousmane Sonko nit la c'est normal mu tawat ni ngeen koy défendre moy dëggantaan tawat na parce que rew mu nit di tawatee la nek tout court mais bu la fi di tontuwante parce que amna wax yo xam ki kay génne missionnaire le, amna lu mu ci djublu deuxième bi ci des moy ngeen créer association wala mouvement juridiquement dañu leen di nax parce que mënut a nekk dañu dissoudre sen parti mais puissance su kii falu le Sénégal yi seen loxo la nekk docteur Cheikh Bamba Diagne ndeysaan dama koy tudd lu parce que débat moom du def débat prof la bu nekk université de Dieu ay ils le sont, wax xam-xam la daf ni euh, Ousmane Sonko bu nekkee ci kaso bi la dooleem ci biti di gëna bëri parce que fokk ñu may ko dolé bu mu waajalee ngir mëna falu ak cinq ans. li ko dese woon ci liggéey ci ay projet dana ko teg ngir mu gën a noppi te cinq yooyu jiitu kii falu ngir doxal moom doole moo lay fal lu am solo la léegi nag doole jooju yéen ñi nekk ci biti est-ce que da ngeen koy yàq ci ñu tam leen est-ce que da ngeen koy yàq ci ñu leen ay terroriste est-ce que da ngeen koy yàq ci taal ak fitna non moment bii moment wu esprit la xalaat dal teey planifier

xam ngeen dat ngu buy dox di dat ngu boo yàkkamtee doo ànd ak moom bu ko jaralee di dat ngu yow boo mënta dat ngu ngir xalaat bant bu la sonk da ngay jéem a sax raam au moins est ce que ngi leen wax dat ngu xam ngeen ko dat ngu mooy nga toog ci suuf di direeku di dem bu am réew dee doxe noonu yow boo mënta dot ngu ngir bañ xalaat bant bu la sonk da ngay jéem a au moins pour ànd ak moom intelligence la laaj kaddu gi ma jëmale ci waa Pastef nag dama gis ay campagne yu doy waar ci wàllu média te ñu bëri ci opposition bàyyiwuñ ci woon xel ma yee leen di parce que nii laa leen yeewee woon ay jamono ci coalition Yewwi Askan Wi mënu leen ma woon a comprendre mënu leen ma woon a dégg mënu leen a mën a xaw woon a xam fi may waxe waaye tey lépp leer na li desaat ci kanam dama leen di alerte seetaat leen ci coalition Askan Wi ay noon garde esprit bi te xool ñu ànd ak yéen ci bi mu parce que jamono ji dafa xat ànd ak yéen parce que dañu foog ni lap ngeen te kuy sombre parce que dañu ni parti militant alors parti esprit un conseil pour mes frères Pastef une vidéo incha allah jëf